moom mi fen fen wa wa taktubul amlaaku malaayika ya dañu koy bindal àddal ni limab juróom-ñaar fukk xatixatan ci ay ñaaw téef alayhi jëmale ko ca jëmmam ja doona ni ci lu dul ay nar képp ko wax lu dul dëgg muy loole ñuy woowee fenn ku ko jëf sunu boroom dina sant malaayika ya ñu bindal ko limab juróom ñaar fukki ñaaw ci fenn woowe mu fen kon lu jar moytu la moom fen waaye li ci gën a tiis mooy lii mu lay waaj a wax kullu xatiatin wenn ñaaw wu nekk ca juróom ñaar fukki ñaaw yooya benn bu ci nekk bi xadaril jabali fii uhudin ñaawteefu nekk dina tol ni kemtalaayu rëyaayu doju uhud wa doju uhud wa nga xam ne foo toll ca màkk di moo sut doju ngor wii ngay séen ëpp ko wenn ñawte ñaawteefu nekk ñu bindal ko jaam ba fen-fen wa dina rëye noona sayxuna al wali nii la sunu sëriñ ba nga xam ne mooy kilifa ga daan tànge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam-xamam noonu lako ko nettale lakkinoo waaye xassamahoo séddale nañu fen li xam satil axsaami mu doon juróomi xaaj am na xeeti fen yoo xam ne lii lañ ca wax am xeeti fen yoo xam ne lee lañ ca wax am xeeti fen yoo xam ne lële lañ ca wax jina la leeral benn bu nekk lañu ca wax ña ko seddale juróomi xaaj nag bahdu sawil ahkaami mooy lenn ca ñay waroom ak ngareñ ci attey islaam fa xaala wax nañ ne jaamihan mboolem la nga xam ne loo ay xeeti fen lañu daal joxoñ nañ ca fi adadi sittatil abiyaati bind ca limab juróom-benni bind muy juróom-benni bayit bi nasmin ci xeeti woy yoo xam ne jayidi woyu sell tarafet aywa nu tàmbaleeg yow ca di la joxoñ benn benn ca yooya xassamool kaziba dañoo seddale ay fen li xamsatil axsaami ci juróomi xaaj fa minhu bokk na ca xeeti fen ya nga xam ne man doobun des ko sopp lu ñu bëgg la wa minhu bokk na ca xeeti fen yoo xam ne maa fen la yoo xam ne yajib war na aywa muy ñaar man doobuhoo fen wañu sopp nag lil xar bi ma ngay xewee ci ab xare bu dee jullit ya ña ngay xeex ak yéefar ya wal irhaabi nga tiital yéefar ya tiital ga nga leen di tiital nag da leen ci xupp li kaafirin jëme ca yéefar ya muy doon xupp goo xam ne yuxu daxu danga leen cay wor lu mel ni jullit yaa ngay xeex ak yéefar ya yow jullit nga bokk ca xare ba yëg ne yéefar yaa ngi ñëw nga dëpp dajeek ñoom ne leen fee dama jóge la fa nekk ci ay jullit yéen su ngeen demee nañ leen faagaagal yéen ñépp dañ leen faat jullit ya bari nañu bari nañuy gànnaay bari nañuy waruwaay tiitale leen ca ba ñoom ñu daw dëpp fen wu mel noonu dagan na banka sabaaram ndax fen woowee jur na ak xub li kaafirin jëme ca yéefar ya ba ñu tiit te lépp yox daxu danga leen caa wor bilkisaa ca fen wa waaye fen woowu dagan na ndax bénéfice u lislaam la waajibuhoo wa nga xam ne nag dafa war moom fen fen wa war nag mooy li fakki maalil muslimi boroom doole yaag yéefar ya nangu alali jullit ya nga fen ba nanguwaat ko fen ba ñu joxaat la ko lu fen wëree rëy dagan na